wax ko ci saar wu tudd al ahzab baamtu ko ci saar wu tudd al nuur teg ndigal ya ca loxol al mustafa sallallahu alayhi wa sallam mu doxal ko ba ni mu fi jóge muy dox ba démb indi woon nañu ci aju yëpp tabarakallahu lu ko jiitu noo ngi woon ci azaka ndax nekk guñ nekk ci weeru muharram ñu ñëwoon ci azaka ba indi woon ci lu jiitu lislaam di ñëw impôt yiñ daan teg xeet wu xeet yi nga xam ne ku bari la doo ca bokk ku néew la lañ koy gàll lislaam ñëw wëlbati ko gisoon nañu lan mooy azaka baat bi ci boppam ak lu muy jëriñ ki koy génne gisoon nañu ci bind yi ak ñàkk ni muy def ci pénc mi pénc moo xam ne nit ña dañoo ñàkk la leen ñàkk mën a jural ci jikko yu yàqu ci kër yu yàqu ci mbedd yu yàqu ci lépp lu yàqu gisoon nañ ci tomb yi wàccuwaayu azaka ci boppam maanaam fi koy borom bi subhaanahu teg ndax fu mu tuddee julli rek tudd ko boroom bi subhaanahu wa taala fu mu tuddee julli rek tudd ko yéen ngi dégg kero ba Isa bnu Maryama alayhi salaam di def discours ba waaw mu waxoon ca euh, julli ak azaka wa awsaani salaati wa zaka ma dumtu xayya gisoon nañ foofu nag ci hadis boo xam ne bi alayhi salaam moo ko waxoon wax ne pénc mooy bañ a génne asaka jarul ñuy seen tub taw waaw mu ne pénc mu dul génne asaka ci seeni mbay jarul muy génn mu ñu seen tub taw waaye yëm ko ci azakay mbay rek azaka ci boppam la wax ne penc mu ko dul génne jërul ñu siintub taw hmm? mu ne su ma tawee rek taxu leen bàyyi may ñoo tax fas yeeg xar yeeg nag yeeg bëy yeeg giléem yi su ma tawee rek ñu ñoo tax waaye yéen taxu leen maanaam ñàkk a génne azaka danger gi ci nekkoon mën naa jural am penc sunu boroom jéppi leen ba tiyam ndoxam <coughs> ngeen jéggal ñu mu ngokk loolu lu am solo la te war nañ cee bàyyi xel ñun waa pinc bi gisoon nañ ne asaka du du du soit maanaam su ma neexee génn su ma neexee bàyyi déedéet asaka force la ki koy joxit moo ko moom yàlla la forcé nga jox ko ko mi ngi ci bind yi ci kanam gisoon nañu xeet yi ñuy génne azaka xeeti alal yi ñuy génne azaka ñu limoon ci wurus ak xaalis limoon ca marchandise mu ñuy jaay limon ca li ñuy amee ci mbay meek garab yi limoon ci jur gi ñuy sàmm gëléem yëg nag ya xar yi limoon ca mbel mi gisoon nañ ci bind bi weesu charte yi daje ci alal azaka ca charte yi daje ci alal azaka war ca charte yooyu ba ca jiitu mooy kiy génne azaka ji moo moom alal ji moom gu sëkk ñaareelu sart bi azaka ji muy gé alal ji muy génn azaka fekk fekk mat na nisaab nisaab mooy loo xam ne ku ko am ñàkkatoo ku ko amul amoo parfait borom xam-xam yi di ko natt ndax alayhi salaatu salaam yàlla yónni woon vingt dinaar la waxoon ci ci wurus mi atu dirham la waxoon ca xaalis boroom xam-xam bi jël az or seet vingt dinaar nu muy toll ci or moom la ñuy mën a xel ba gis ne quatre-vingt-cinq daal koo ci xam ne am nga lu ko mën a jënd nekkatoo ku ñàkk génn nga ci cadre faqiir dugg ci cadre al aghniya waaw ñu tàmbali woon nag tomb azakay wurus ak xaalis azakay wurus ak xaalis boroom xam-xam yi bañ koy natt dañoo wax ne li ñuy tuddee rubuul ushur rubu mooy un quart mooy fukk maanaam nga ne benn ñaar ñett ba wax juróom-ñeent teg fële bi ko fukkeel nga xaaj ko ñeenti xaaj jëlaat ñett ya benn ba di asaka moom nag moom moom wurus daanaka moo wootu seefaa ci nun wuutu euro ca ñoom bekaay seen waaw wuutu ogiye ci ahlu moritani wuutu dalasi ca waa Gambi ñoom Cheikh Anne réew mu ne boo fa demee rek mën nga natt xaalis ba ci ci wurus loolu ci màndarga mi wane na yonent bi yàlla ko yónni ca la bokk waaw ndox ko boo dem rek fekk ka fa ne ah kii de yàlla ko yónni ndax bu ko génn bu ko waxoon ca xaalisu al mamlakatul arabi saudia ku amul xaalis boobu coow topp la waaye wurus moom adduna si yëpp a ko am adduna si yëpp am mu nattal ñu ca vingt dinaar yoo xam ne ñëpp mënuñu ko am waaw waaw danaa leen wax daanaa leen wax ci waxtaan yi weesu suñu waajur yuy génn àdduna bërki démb di wax ne musta téyeb million bu moom li muy teg kon mooy ki musta koo war asaka mësu war ndax nattin wi ci wurus ak xaalis boo ko ci nattee te dencoo lu mat lu jënd loola ku la jox asaka man ngaa lekk waaw sunu genre yi nga xam ne yàlla nu yàlla yërëm mag suñ mbàkki si laak oustaz Alioune Mbaye ñi mel ni ñun waaw nga xam ne fa ngay denc saa boo demee yaa ngi fay fekk ay vingt cinq mille ak cinquante yu kenn xamut warkal waaw te penc bi jàpp ne yow li nga yor moom ndeysaan xanaa rek nu sant suñu borom loolu tombal bu am solo boo xam ne bii noonu lay tekki bu dee commerçant bi bu dee commerçant bi moom tam ala qiimatiha la koy def mooy su fekkee dañoo jël lu mel ni euh, entreprise yi wala société yi nga jël ci suñu partenaire yii di lob bub maam jaara wala suñu partenaire bii di C3S wala ndox me karo yi ñoo ñu ñoo ànd ak ñun dégg ngeen ko bi may bëgg a tàmbali jataay bi ñu ubbil nu ko seeni njaay waaw xam naa yéen sax yaakaar naa ne kuy jënd lu ñuy yor ca ñoom ngay dem waaw ca ñoom ngay dem ba demee wax ne nangam nangam te bañ koo def na maire ba defoon maire ba togg ndeysaan gaas ba jeex mu mu gàddu koy wër gaasu oustaz Alioune mu ne ma wër naa yëmbal gépp gisuma gaasu oustaz Alioune Sall may woo téléphone jox ma borom bitig ba ma ne ko <laughs> gaasu oustaz Alioune Sall mi ngi tudd lobbam maam jaara borom bitig na ko mooy bii mu ne ko jaay ma bii laa doon wër mu ñëw ayitee mu neex waay xam naa bu ñu ko defee noonu dana neex ci man lool waaye neex ci sama sponsor yi waaw sponsor plus lay doon wala spécial waaye soo ñëwee ci ñaari barab yooyu nga dem fukki weer ak ñaar ñëw ci weeru muharram wala sax ci ramadan nga xayma li ci bitik bi waaw xayma li ci bitig bi ñaata gaz fi nekk xotti gaz yi nangam nangam nangam ba jeex damay misaal rek wala aluminium bi wala euh, silur yi wala nangam ba nga noppee lépp nga totaliser ko bi nga ko totaliser nga gis ni yow kat li nga am ëpp na un million cinq cent léeg-léeg mu nekk un million cent dix neuf mille léeg-léeg nangam di yëg ak wàcc. selon li ñoom Modou Mbacké jum ak ab Wilane wilaan ñu wax ne loolu la or di jar rek su ko defee fii itam ci bagage yi da ngay xool bagage bu ne li nga ko jënde woon xayma leen ñoom ñëpp suñu nee jënd quatre-vingt-cinq grammes or nga yëg ne ah man kat léegi maa ngi commerce waaye commerce gi azaka war na ci waaw tabarkalla Euh, sunu mbokkum wax sa xalaat waaw marchand ambulant marchand ambulant bu xoolee lim yor ci bagaas su ma rek mat na ko waaye su matul nag asaka war a gujj roodu tijaara moomu nag mooy lépp loo xam ne dañ koo exposé di ko jaay lépp luñ exposé di ko jaay lépp ngay xayma génne ko azaka te xam ne ak jaamu yàlla la gu ñàkk gee génne ak mooy la ak tooñ la loolu ñu ko doon tënk ñu tënk ko foofu bu dee lu jëm ci wàllu mbay bu dee lu jëm ci wàllu mbay boo bayee ba noppi xeetu mbay mi nga bay ñaari yëf lay doon mbay mi nga xam ne sunu boroom la ko arroseel ci tawam bi ak mbay mi nga xam ne yaa def ay pexe ba di ko arrosé ba demee noota guy jama fekk fa ñoom mbay gajagaak ñoom moor yàlla sàmm leen ak ñu ñuñ ko bokkal ànd su fekkee ne tool bi ñëw nga ci xam nga ñaari xeetu tool yi tool boo xam ne bii yaa fexe ba def robinet walla forage wala teen di ca tànk yi sotti ca mbay ma bokkut ak mbay moo xam ne bii da ngay tëdd sa kër rek yàlla arrosé la ko ñaari xeeti mbay yooyu ñoo fi am xeetu mbay male day taw nga def ko gerte mu gën caa siiw ak dugub muy pepp waaw muy pepp parce <laughs> que démb ci daara ji soxna si nee dañuy waxtaan ak benn xale ba ne ko di ko jàngal mbirum liy toj njàpp ñu ne ko tuur tuur ndox day toj njàpp ak tuur dugub mu ne suñ kër amul dugub mu ne waaw <laughs> ñëpp ni këpp waaw dugub mooy pepp xeeti pepp yi waaw xeeti pepp yi ndax la la laay ji waxoon rek wa mimma axrajna lakum min al ard su ko defee loolu kon bu fekkee yaay arrosé asaka ji bokkut ak su fekkee arrosé woo bu fekkee yaay arrosé boo waññee juróom-ñeenti saako walla juróom-ñeenti paan wala juróom-ñeenti kilo bu fekkee yaay arrosé fukkeel bi da koy xaajaat jël xaaj ba benn xaaj bay asaka bu fekkee arrosé woon na xanaa sunu borom mooy taw lu mel ni gerteeg ñebbeeg ñooñu ba defee juróom-ñeent ba ko fukkil mooy azaka ndax borom bi subhaanahu wa taala ku maandu la waaye ku mën a àtte la seet xoolal ni mu ko defee rek booy arrosé am na nuy génne asaka bu fekkee doo arrosé moom mooy arrosé am na nuy génne asaka waaw ñaari xeeti mbay yooyu nag mbay menn mi léeg-léeg ña ñàkkoon pexe ñoo ko daan def meneen mbay mi ñi am pexe ñoo koy def ndax hectare hectare gerte hectare kaanee ko gën a sakkan boo jëloon di bay hectare gerte li nga ci mën a am li nga mën a am ci hectare kaanee ko ëpp waaw moo tax politik agricole bu yemee ci joxow jiwu gerte lim dese bëri na lool lool parce que bi ñuy génn Dakar maag sëñ Mbàkke yal na yàlla yokk wér maa ngi naan ko gis nga sunu àll bi sunu dex gi sunu géej gi yàlla def nu ko pareeloon ak sunu àll bi ba fii ci réew mi doo fi dégg ku ñàkk mbaa ku ràgg malheureusement ni ñuy séddalee sunum koom ak ña gën a yay ca koom ma tax na ba yu baree bare bari du am Afrique gii ni yàlla préparé sunum réew mën ngaa génn Afrique sax peut-être doo ko am ma ne ko ginnaaw foo wàqi am ndox ba ñu tudd suñu réew mi wàqi naan wàqi naan defe naa dégg ngeen fi benn quartier bu tudd wàqi naan wàq da ngay rek daal di naan maanaam ndox ma daa neex a jot aw naan réew moo xam ne wàqi naan la nga xam ne mënoon na département boo dem département boo dem mel ni càlle tey càll bu amoon juróomi forage duutoo gis ab càll càll Dakar déndéy noonu cël ma xam mbaakol gële noonu feneen noonu mbokk yi maa ngi ci azaka maa ngi toll ci mbay mi ginnaaw bi ma jógee ci commerce gi ginnaaw bi ma jógee ci e, wurus ak xaalis waxtaan wi jeexut dañoo ak suñ koor yëkkatee bu leen neexee ne ci kanam tuuti ngeen woote ci 88 628 98 98 ngeen bés 2 ñoo ànd ci suñu jitaay bi nga xam ne day am lundi incha allah di am mardi waxtaan bi di am lundi di am mardi di tàmbali 8 heures di jeex 10 heures 88 628 98 98 ngeen bés 2 jërë ngeen jëf sunu mbokk yi xëy ci xibaar yi ñu ngi nii tax yor seen kayit. bëgg leen a firiñ fàncal xibaar tuwaay firiñ fàncalan ko ci wolof ñaan leen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bii ak suñu yi yii yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu